mbokki jullit yi bu ñu nekkoor seen xel dem ci naafila tey la juróom-ñetteelu guddi ci weeru koor ñu fa yéene cee julli ñaari rakka rakka bu ci nekk fatiha benn yoon ak suratul ixlaas fukki yoon ak ñaar sëriñ bi nee na képp ku ko def incha allah araf fu ca nekk des na ko ca bindal tuyaabay jaamu yàlla junni at dana mel ni it ku leel xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yépp juróom-ñaar fukki at boole ko màddal leen te woddu leen dina mel ni it ku góoreel junniy jaam te bu ñaanee yàlla dina ko nangu te buy dekki dina dekkaale ak leer te buy jéggi siraat dina mel ni melax te des na ko ramuloo juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne safara ñeewoon na leen ku ci bëgg am lu la leer demal xool téere Sëriñ Suhaybu Mbàkke boobu di xóoratul ay mbokki Sénégal mbokki bitim réew mbokki àdduna wërngal këpp xéewal ñëwati yow mi amoon ay jafe-jafe yow mi am lu la lëñ ci sa àdduna dawal gaaw seeti sëriñ xaadim njaay mu nekk koo xam ne ku yàlla may xam-xam la xam-xam bi nag bokk na ci seetal nit ba xam ay ajoom wax ko li nga xam ne moom moo nekk ay jafe-jafeem sëriñ xaadim njaay seet gi moom mën na ko lool ba tax na nit ñaa ngi koy woowe fu nekk ci bitim réew ak ci biir réew mi yépp ñu ngi ko fay woowee ngir yàkkamti ak liggéeyam bu rafet bu sell sëriñ xaadim njaay li ci xaar mën na ko lool saa soo ko wooyee rek si kat kàttanu yàlla suñu borom subhaanahu wa dina la wax lan mooy sa bëgg-bëgg ak yan sarax nga war a génne ngir mu fànqal la yenn musiba ak lor yi nga xam ne ñu ngi jëm si yow jot ko nag yomb na jëlal numéro téléphone bi ma jox la ko mbokk 77 la 064 74 34 77 064 74 34 wala 76 343 16 20 76 343 16 20 Serigne Khadim Ndiaye mu nga dëkk ca Mbour quartier bañ naan onkat waaye nag boo ko soxlaa boo ko woowee ci numéro yooyu rek dina la fekk si incha allahu yi defal la ñaan yi nga xam ne bëgg nga ko num kawe sañ jot Serigne Khadim Ndiaye Ngongo soxlay askan wi rek tax mu jóg daw leen gaaw dem ci moom